ma jël man damaa bëgg a wane sama bopp maas. mu nekk sa ñaari combat. mooy sama quatrième combat. waaw kon booy nañ ma jël quoi man damaa bëgg a wane sama bopp. booy ku si mel ni ñan fan fan fan yii grand compte pour dafa xew de parce que bu seetee bu wàccee may Laurent loxo yaakaar naa ne lu ne war naa mën a xew ci làmb. waaw dafa am wàcc may Liss Ndiago waaw noonu la demee kon gars dañoo war a jëlante parce que làmb xale-xale ñoo koy def. kon dañoo war a jëlante ñun suñu biir ñun xale yi ndaxte boobu léegi ñu may mootu parce que ëpp ñu mat dara la ñuy wax làmb daal du sama naagu du sama lenn mais ëppale ñu mat dara bu dee mobilisation ëppale ñu ma ko su ma duggee esaat da naan kii am na jàppale ëppale ñu mat dara la ñuy dugal si esaat lii làmb di laaj dàqu ñu ma ambiance su ma tegee samay sabar ñoom ñu teg seeni sabar yow dangay ngay bàyyi ñoom nga daw taxaw fee seetaan foofu daaxuñu ma dara si làmb kon dañ ma war a jël ñu neexal ko ba mu neex. yow booy ñu coo si làmb ji rek. booy ñu coo bëri na moom bëri na foofu yoo xam ne lu fàttali na ay champion ay super sax. yow leer na ne man war naa mën a dépasser fu may toog naa nañ ma jox diw parce que yow xam nga ne làmb ñi ñii la ma booleel. Ah, mën bañ na ko yoon dagg sa xaalis ba nga des fa 2000 francs man kenn dagguma dara. non loolu dama koy fayoo si benn mbër eh, non sama ah. xaalis waaw billaay. nar naa fi dóor mbër benn naan kii lu ko dal de waaw konte booy bi keroog ar bi doxoon nangu keñ jébal ko cinq avertissement yi eh, sama xaalis boobu nar naa ko fayu si benn mbër de kon nañ ma jël quoi ñun neexoon. bëgg mu jël la. yee eh, ñi ma bëgg ñu jël mooy champion ñu tudd si làmb ji. yee eh, mooy champion ñuy tudd man du ma xas benn mbër ay champion lañ ñoom. yow Thiatou Rebeuss moom gaynde la moom champion la. yee bëgg naa bëre moom. mais du dara nag a ah. mais dafa doon champion. waxuma la xam fi ne nii yaa ngi am problème CNG ban ban ban yóbbu sa xaas ba du des 2000 nga ne yow procureur nga procureur nga bëgg laal te dégg li ma wax déféré force. waaw moom afoo ah, dafa dëkk rek xamu fa dara day xaanju rek. mooy loolu naaj. procureur la nga dafa dëkk dëkk fa am ba du ñaanal albasir eh, suñu waaw suñu waay la bar sëñ Fallou kooku gaynde la si biir gaynde jàmbaar la si biir jàmbaar yi. par sëñ Fallou amaana mu ngi dallu foofu noonu ay yées booba léegi yow ñu ngi koy ñaanal mu génn quoi ñu ñaana gars yi ñu jàppale ñu si yow soxlaa nañ ko quoi Albasir ñu ñaanal gars yi génn ñu génneel ko ñu may ko mu taxaw mooy loolu moom foofu dafa dëkk xamu fa dara mais na ma jël ñu bëre champion la gars yi nee nañ moom champion la gars yi nee na moom gaynde la caatu rëbës kon dama la waaw xeexkat la bërekat la moo ma jiitu si kooku mu bëree maay boobu maay dem stade di dugg ay mbalit kon su ma demee ba làmba war ma boole moom damay sant yàlla kon daf maa war a jël kooku mënuma bañ leneen lu mu jël lu man baaxul parce que mënuma bañ appelé ma dara si làmba bar sëñ Fallou lii gars yi soxlaa si làmbale mooy si man amul lu neexu si moom te neexu si man. la moo tax booy ñi daan nga xam ne booy génn actuellement nii koo wax mu ne na ma samay grand may sens ku si mel ni Tafa xaa et cetera et cetera pourquoi nga dem cadre nga xam ñëpp dañ ko fee bàyyi le procureur de l'arène xeex bëre te ku ne xam na ne bu jógee rëbës yëpp dañuy jóg jurbel jóg ngay nan la jox cadre bës loo gëm la wala da nga ko wax ni pour bëggalee yox gars ma bëggalee yi man gars fii nii ñoom dañuy wax sax ñu ne boo jëlu cadre bës bul bëreeti parce waaw billaay bu yeboo feexoon booy saan ay daw ki kenn naay daw rek sif sa micro mooy loolu mais dañoo war a parce que yow doo dem di jël beneen grand frère affaire yooyu noonu du safe quoi parce que làmb dafa war a saf ñaari xale ñoo koy def mu neex ñu def ka làmb capital bu rëbës yuuxoo fii ngor yuuxu fii loolu day neex day dundal làmb day yeewaat làmb eh, parce que si di làmb yi neex fii dafa war a yeew kon caatu rëbës dafa war a ñëw ñu bëre bar sëñ Fallou waxuma ko nit dara nag. su ma la déggee mafia bi ñoom ñoo ne caatu rëbës mais yow waxoo ñoom ñoo yëpp caatu rëbës mais non non du cadre na ñoom ñoo yeb ci atu rëbës sax mais du cadre na mafia bi di caaki ni mafia bi ñoo yeb ci atu mais loolu waa làmb ñoo koy waxtaanee amateur lépp ñoo koy waxtaanee foo dugg loolu la ñuy waxtaanee mais kon dañoo war a bëre. bu ñëwoon nga jël sa wàll yóbbaale bar sëñ Fallou. Ah, am naa bu ñëwoon léegi nga jël sa avance yóbbaale billaay walaay taalaay yooyu ñun loolu dawul suñu yaram. yooyu ñun Thiatou Rebeus amuñu lu ñuy tiir si moom ñun fii lañ dëkk suñu ndoxu géej bi fii. dama gis dama bu ñuy dëkk mbër naan tàppet la na ma jël li affaire mais pourquoi nga nangoo ne saa Thiatou Rebeus champion la ndaanaan la day mobiliser te xam nga ne am na am na danger bu bëree bëree bëri pourquoi nga reconnaître loolu ba pare ne la ko jox. waaw mënuma bañ champion ndaxte ni ku nekk buy bëree bëgg na daan champion. bëggoo daan ni ñu naan ah kii de day daanu rek ki nga daan day daanu dafa fi dara wala. kon kuy bëre bëgg na daan champion kon man damaa dugg si làmb ji pour daan ay champion pour mën a nekk champion du ma champion damaa bëgg nekk champion te pour nga nekk champion foog nga nekk foog nga daan champion dëgg te moom champion la mënuma ko ko bañal dafa daan ay moromam quoi dafa daan ay morom dafa bëre ay moromam daan leen kon damaa bëgg nekk champion dama foog ma bëreek moom daan ko kon dafa war a jël làmb ji ñu bëri ko si fulak fayda nag yaa ñu def ful ak feere def yëfi jàmbaar daal ñu xeex ñu bëre bu xamul xeex ma ne ko ñu jure ma wax ko samay lébu soo déggul ma xeex ma wax la samay aw ujjal làmba ji aw ñu jure dafa war a neex quoi. mais jure non non foofu damaa juum sax defuma fa dara man dama pare ba pare xam ne man damaa jum sa làmb jooy te damaa bëgg a corriger bopp ah waaw. ah bëgg ko man damaa bëggal maas la waa làmba ñu xam ma man maay kan kenn xamagu damaa bëgg suma tuur mu génn. foo dug jógee stade bi ñëpp yëngatu ah amateur yi nga xam ne ñi ñëw ci làmb ñu si ëpp yow bokk nga si ñi nga xam ne yaa andi keroog ci stade bi ba pare nga ne yow làmb xamuñ la yow la ah. non non bi laa ma parce que dafa am lu nekk si man muy su côté bépp su côté supporter samay supporter ba léegi amaguñu sens maanaam yëngatu ni ñu war a yëngatoo. parce que ñu leen ko quoi parce que ñoom fu ñu ñëwee rek gendarme yi ñu ngi jàpp du dóor quoi parce que mayuñu leen loolu parce que ñoom fii ba suba duñ daw gendarme yi itam kon day metti quoi kon nañ nit waaw foog ma wane sama bopp daal waa làmb ñoom ñu xam man maay kan bar sëñ Fallou. pax ma rek ngay wàcce de. mooy. Ganos mooy arrondissement wàcce goo fële rek ngay wàcc pax ma. arène nationale su ma fa wàccee gars yi xam ne dëgg la dangaa déggoo booy lañ may wax ngeen ne man bés bu ma bëree arène nationale fa la ñuy jaaree CNG aj ma waaw xam naa ne bu dee ruube maa salder rek kon gars yi ñuy wax noonu mooy loolu de <laughs> billaay gars yi dañu ay jàmm bés fa bëree bés ma fa bëree CNG damay aj billaay <laughs> bëgguñ bëgguñ euh, nu mu tuddee ñu àcc bu ngor moom vraiment kon nañ la bàyyi pax ma rek ah. Ah. man samay supporters duñ tooñ mais bu yëngatu jotee dañuy yëngatu te xam naa ne buñ demee arène di dinañ leen may pour ñu yëngatu mais te bés bu ma fa wàccee nag <laughs> li ma waxoon mbër mi rek waa dañuy dar gémmeñ te bés ma fa nañ dar gémmeñ mooy loolu billaay caatu rëbës nañoo ñu bëre lu mu jël loolu man baaxul. leneen du caatu rëbës dégg naa nga ne gars nañ bul bëree keneen ku du man waaw man sama yoon yaaxamtiwu ma ko su waaxu sa jeexul rek yoon bi du jeex man sama carrière yaaxamtiwu ma si dara man sama carrière man yaaxamtiwu ma si dara parce que jooyu ma fukki dërëm jooyu ma cent franc jooyu ma yére bu rafet yu jooyu ma dàll bu rafet kon waru waruma yaaxamti dara di séentu fu ma jotagul non non def nànk-nànk xam ne lii mooy sama sama làmbo ma jël ko. promoteur ñu may woo wel wel. saa su ne ñu may woo wax fa digg rek la ñuy wax même wax caat rek moom rek la ñuy wax waxaat ñu ma am na beneen mbër bi ma loon wax mais mënu ma daal waaw mais ñu may wala non du cadre toj na moom toj na bu baax làmba xam na ko bu baax a baax mais man damay nangu dogal soo ma ëppee man du ma mbëri xam ne dañuy forcer benn affaire man soo ma ëppee doole dama naan gaan yaa ma ëpp doole wala du ma jël waaw bës bu jotee bu ñu bëre nañ bëre mooy loolu mais caat daal moo fi ne moo fi ne. man moom app doole moom a daax bëre na jël lépp mais bu làmba ji taxawee ñaan naa yàlla ëpp ko doole ñaan naa yàlla bés boobu noonu ma daax ko bëre waaw. ñu ci Pall Ndaw émission bi te ku wax mbër mu daw wax jàppale macha allah comme ni nga ko waxee euh,

man naa man su ma santee Ngor sant Yoff sant Waxaam sant Almadi sant Aéroport jàpp naa ne sant naa ñëpp eh, sant naa ñëpp di sant ñi may ñaanal ñi xamante ne yow ñu ngi génne seeni sarax te man teguma sam bët te man xaw ma maa leen di sant bu baax ñi xamante ne ñu ngi bàyyi seen temps di tee seen course di ma ñaanal te man yëguma parce que Ngor fi loolu lañ xamaa ñun lébu yi fii loolu lañ xam xale bu ndaw buy auditeurs ñoom dañuy tàllal loxo yi di ko ñaanal moo xam mu yëg ko moo xam mu ñàkk ko yëg eh, ñun fii loolu lañ xam quoi lébu loolu la xam lépp looy uti rek dalay ñaanal di sant ñëpp di sant pol Fuuta yi di sant pol yi bu baax a baax gis naa seen taxawaay si di sant séeréer yi di sant bépp xeet joolaay sax njaago yi sax di sant am na njaago yu may ñaanal eh, man ku nekk moo di sant ñëpp il Idda Saalum bi ñëpp maa leen di sant di sant surtout maa sookoon maa di bu baax a baax gis naa ñaan may ñaanal bu baax di sant ñàngoor ñàngoor bu sook yow maa ngi koy bu baax gis naa li muy taxawoo si man fu waaw fu làmb taxawee daa moom amatul jàmm dañuy waxtaan sax jamono bii nii sax mu ne ma noonoon nañ génnaa si làmb bi ba pare moom day dugg si àll bi day dugg fu ne ndir man ba suñ faalu ñàngoor maa ngi koy bu baax ama fayam quoi jox ma ko fukki dërëm alalam lay yëg di ko si def di jaay ay benam di ko si def ñàngoor moomu maa ngi koy sant bu baax a baax eh, loolu ku la koy defal amoo ko waa bëgg nga doon dara rek moo tax yow kon damay sant ñi may jàppale ñi may ñaanal ñëpp di sant booyab di sant sama noir bi comité noir bi ñëpp di sant ku si mel ni Dembis ku si mel ni Ndiora yow ku si mel ni Babou yow ku si mel ni Amel Sankhare ñu mbax gi yow maa ngi sant bu baax a baax ñooñu gis naa ñuy deg si man quoi ak garant yi xam te ne ñu ngi si ginnaaw laaxatu ñëpp maa li sant bu baax a baax di wax ne gis naa ñoom lu taxawoo si man gis naa lu ñuy deg si man garant yëpp bàyyi ma benn garant dañu yëkkati seen xaalis yëkkati seen alal di ko si def képp ko si def ñaar dërëmam rek maa ngi koy sant bu baax ya parce que fii Ngor ñu amuñu 10 000 amuñu 100 000 ñaar dërëm ñaar dërëm lañ xam wala 100 francs 100 francs ba mu mat 10 000 wala 100 moo gën a bar moo gën a mooy wala may moo ñu may doole quoi ñun alal boobu kon maa ngi sant ñëpp di sant ñëpp ñëpp di gërëm ñëpp di sant daa daa bu far doomi Farba Ngom maa ngi koy sant bu baax a baax taxaw na ma si kobaay bu baax moo koy dëgg rek taxaw na ma bu baax daa doomu Farba Ngom yow ma koy gën a woo si yeneen combat yi koy gën a woo daa di gën a woo papaam Farba Ngom moo leen di gën a woowaat si yeneen combat yi ñu gën si taxaw di leen wax ne yee léegi mu taxaw rek fekk fan yii rek fekk trois jours rek combat bi dina taxaw incha allah daa. maa la avance. non jotuma damay woo ñi ma war a woo. parce que combat man bu xasee ba taxaw rek amatuma benn caaxaan. dama siy nekk ba kër ba lamb ge ma koy jox ga daam kon daa dama koy waaw di ko gën a woo moo papaam si làmb jii di waaj taxaw di woo Moustapha doo ma sekk caam yow di gën a woo ma sekk caam di ko woo si yeneen làmb yi di waaj ñëwaat nii. mu gën si jàpp di ci gën si taxaw gis naa taxawaay yëpp autorités yi nekk Ngor yëpp gis naa seen taxawaay gis naa liñ ma taxawoo gis naa waaw tike yi ma jëndal gis naa liñ kaar yiñ ma jëndal eh, di ko wax ne nañ ko gën a defar si doomu Ngor yi quoi ñu gën a jàppale sport Ngor yi muy si làmb ji muy si football bi muy si volley volley muy si basket bi lépp nañ ko si gën a def parce que jeune moo mën a dooni la neen quoi waaw parce que jeune dëkk bi moo mën a dooni gi Eh, ñëw investir si dëkk bi kon nañ ko gën a jàppale nañ gën a jàppale jeunesse su ngor bi jàppale sport bi lépp waaw gars yi ku si nekk man si gis sa bopp mooy si lépp muy si jigéen ñeeg si góor ñi ñoom ñu jàppale leen yaa ñun dañuy soxlaa loolu ko waa ñun loolu noonu dañ kay soxlaa kon maa sant ñëpp yow di masawu gars yëpp coono yow di jégalu koñ bi yëpp si dérangement bi yaa ñoom jàppee ñu ko dérangement sax ñoom ay mbétte lañ koy jàppee. parce que seen doom bu aye rek ñoom jàpp nañ ne ñoom waratuñu nelaw mais maa leen di sant bu baax di leen jégalu yow di wax si dérangement yi masse coono lépp comme ku su mel nangam la la sas xam nga loolu yombul ku la koy defal loolu noonu yombul quoi maa ngi koy sant bu baax di ko masawu coono la tontu na waaye après xam nga loolu noonu dafay métti quoi te loolu da koy muñ coono di mu gën a jàpp rek ba yàlla def ñu doon dara Eh, ku si neex a gis sa bop man damaa reebe may jël fii ay gars di leen yóbbu ay États-Unis ñi ay nangam dëkk ñi ay nangam dëkk bari sañ Fall ma loolu laa reebe parce que ñun Baye Fall maa bi da nga koy dund quoi yow di wax ne Baye Fall waajal cant yi yow cant yi na ko ñëpp waajal tundu tundu ngor bi tundu yor bi tundu waxaam bi almadi Tarawo di gën a woo Baye Fall Tarawo yi maa di woo si cant nañ ko waajal bu baax a baax di woo waa town amul luñ si combat bi town parking ba bés dinañ jaabu sax yeneen yeneen yeneen jëmmi jamono ñu dem ñu defee fa émission yee nga xool dund Siteu quoi bàyyi faali foofu noonu damay béggee quoi di leen wax ne ñu waajal cant yi bu baax bu dat bi génnee rek nañ ko annoncé fépp date bi génnagul bu date bi génnee rek nañ ko annoncé fépp fépp fépp fépp mais xale yi jigéen ñi ñoo bëgg a benn affaire sargal supporter Siteu samedi yow ñu si woo ñëpp incha allah tal bu bees lay doon kowaa sargal fan si yi yee eh, képp kuy bëgg Siteu rek ñu la siy woo xale yu jigéen ñi ko organisé mooy benn tànn beer ñu si woo ñëpp baa ñu kenn kenn kenn kenn waay nekk rek nañ ñëw xam nga loolu sax non xam nga ay tànn yooyu sax yow boo yëngu mais xam nga rek xale yu jigéen ñi ñu siy woo jàmbaar yëpp yee ñu si woo ñëpp ah loolu ñu si woo jàmbaar yëpp ñë ñëpp di sant ñi may ñaanal nag du ma taay bar sëñ Fall ñi may ñaanal dañ may ñaanal maas ba xam na lii métti dañ siy gën a dugaat gën si waaw gën si songuwaat ñi may ñaanal bàyyiwuma kenn kenn fépp foo mënta nekk nga may ñaanal maa lay sant di la gërëm yooyu maa lay sant di la gërëm di sant kiñ ñu tuddee woon drapeau bi masi la yooyu moom mi ñu tuddee woon drapeau bi maa ngi koy sant bu baax a baax yooyu parce que mu may conseil quoi mais bi làmba yu jeexee mu may conseil xam nga rek teem nga ne mu may conseil ñu jàpp ne mu lay conseil avant lamb ñu jàpp ne yow la faraloon mais bi làmb ji jeexee mu may conseil bu baax a baax maa ngi koy sant bu baax ma si di wax na maa ngi ñëw indi la drapeau bi man sa doom laa ñaanaloo ma nekk champion ma nga ñaanaloo ma nekk si jàmbaar yi nekk si kaw incha allah di sant ñëpp di la sant tamit yow ñun duñ dara ñun nuñ mënta mel la kon keroog la ma waxoon ba ma daanee mbër ma rek bañ may laaj média bi laa ñi ko sant. ndax te ñun bu ñu xamee rek yàlla ak lii la est-ce que bu ñu xamee ba xam suñu image ba ku nit toog réew mu nekk duñu seetaan yàlla ak lii la kon ñu leen di sant bu baax ñun balaa ñuy xam ne yéene nañ leen rek yàlla dogal ñu dem ba am dara wala ñu dem ba nekk dara bar sëñ falo su boobaa yow da ngay toog sax sa bureau di yónnee say emploi ñun loolu la ñuy rêvé bar sëñ falo kon ñu leen di ñaanal yéen ñun luñ lépp luñ wala képp ku ñu mënta xam ya parce que Balla Gaye Modou Lô ñu fi lii ah ñu ñoo fi fekkanteeg lii nga doon xale bu ndaw ñu lay chercher di la jëlse yow ñun ñoo ko fi fekk yow kon ñun da di sant ñun seen fay yaa ngi leen yàlla dafa jaamu daal saa su nekk muy wëree cëri muy yow muy idi muy maas yow muy idi ak benn bépp journaliste bi yëngatu si lii nii parce que lii dafa metti quoi dafa metti ngay bàyyi sa lépp def say benn def sa lépp yow dagg say bàyyi sa yitte yëpp yow fu nit xewlee nga ñëwal ko te ñun duñ dara mënoon nga ne ak ah, si te yorul dara bàyyi ma topp Balla Gaye walla bàyyi ma topp Modou Lo mais xooloo loolu gisoo loolu kon ñun da leen di sant bu baax a baax barki sëñ Fallou parce que man keroog ba ma daane loolu laa ñu koy wax média bi kon ne leen président da leen war a jàppale président da leen war a teg loxo. képp ku yàlla dénk réew mi yéen da leen war a teg loxo mu dooleel leen billaay walaay taalaay sama xol laa ko nag parce que gis naa coono yi ngeen si daj quoi yéenay jël seen kër yi di ko si def di jël seen alal di ko si def yow kon yaa na leen yàlla fay quoi ñun nuñ mënta mer la ak ñun duñ dara ñun buñ feeñee ak yéen di wax ne lépp lu ñu ne dañoo jum rek yow ñun ñooy lépp luñ fi wax lu xam ne dafa rafet rek gars yi ñoo ko def si ñun. kon ñu ngi jégaluwaat bu baax di jégalu Sénégal di jégalu ñëpp diaspora bi ñëpp yow di sant Rocky Balboa Rocky Rocky Balboa MMA yow maa ngi koy sant de parce que saa su nekk mu may conseil saa su nekk mu may teg si yoon saa su nekk mun na may wax mbër dee def lii dee bàyyi lii damaa bëgg li nga génnelal ma ko Rocky Rocky maa ngi koy sant bu baax a baax a baax yow doomoon na ma xoolee man naa ko. di wax ne carrière bi moom na si gën a jàpp rek ba kër baa ñuy doon dara parce que dafa am lu topp suñu ginnaaw te caaxaan waruñu te tey lañ gën a mën a teg suñu baken tey lañ mën a gën a garanti suñu bakken si suñu carrière kon moom na si jàpp baax Rocky Balboa maa ngi koy sant bu baax Papis di wax jégaluwaat àdduna ko waa di sant ngor ñëpp. mooy loolu wasalaam. mi ngi noonu SBT Média seen émission seeti mbër ñu seet si woon ki nga xam ne moom mooy Siteu bu Ngor di wax ne li duuf si nag bi xajul si si na mbër moo xam ne da ngaa daan te amoo lu may wax dëgg yàlla média bi nga xam si tey ko bañal parce vraiment booba léegi ñi ci jàpp seen sumpak seen dërëm seen daxaar vraiment def ko ci da ci ay coona war wax dëgg yàlla mérité nañ nga sant leen gërëm leen te comme ni nga ko defee macha allah waaw. di sant sëñ Massamba sëñ Massamba Fall sëñ Massamba waaw bu doomi Seex Ndigal Fall maa koy sant bu baax gis naa ko si combat bi dama am combat mu bàyyi lépp ñëw ñëw si bis bi kon kooku amoo fayam quoi sëñ Massamba maa ngi koy sant bu baax a baax yow di sant Seex Tidiane Oustaz dama bëgg li nga génneloon ma ko. bar sëñ Fallou Cheikh Tidiane oustaz waxaam maa ngi koy sant bu baax a baax kooku sama papa sama kilifa la kooku depuis mbapat kooku man lu ma mënta xewle moo ngi si su ma jëlee sama nit boole kooku moom sax day jàpp ne man maa man la man la ba léegi kon kooku ama fayam oustaz damay ñaanal kon ni muy ñaanalee nit ku neex dama koy ñaanalee saa su nekk mun may ñaanal Cheikh Tidiane oustaz maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di ko wax na gën a yokk ñaani rek. soiram ma la laaj benn question dama lay ñëw rek jox la micro ne la santal gërëm ma dem ñibbi parce xam naa li nga war a sant lépp xëjul ci émission nag di yàlla am seet non dafa metti mais xëjul rek maa ngi jéegalu parce que dañuy pare sax ne oh naa diw dafa metti quoi kon képp ko ma fàtte rek maa lay jéegalu bu baax a baax yaa di wax ne gars nañ si gën a jàppa teg ma loxo yee ma dem uti doole ñëwaat damaa war a uti doole ko waa moom la gaa yi wax ne nañ ma yokk doole bi lépp luñ ma corrigé woon rek lépp luñ ma wax ne dafa maa manqué rek bëgg naa ko uti gi ñëwaat nee na damaa war a yokk xeex bi damaa war a yokk doole kon naa uti doole bi ñëwaat kon nañ ma gën a teg loxo monsieur le maire maa koy wax mu dagal ma ticket ma dem yokki doole ñëwaat monsieur le maire ati gaynde gi lion bi yow maa ngi koy wax mu dagal ma ticket ma dem uti doole ñëwaat maa ngi koy sas quoi parce que ndaw dëkk bi yëpp lool la ñu wax daf maa war a dagal ticket ma uti doole ñëwaat kon maa ngi koy wax. di ko teg si loxo vie sama papa